ko jotoon ginnaaw doon ka talal ci kanam yendu si naaj bu tàng bi di woy lara bi lara nan lu waay am lu waay man lu waay fi sabilillah lu waay man ñoo ngi mbugal xale ana ku koy safara xale di nitu aljanna si dunya mu fi dundu safara sama badala woona nga jàngal ma alxuraana te teemaate wan ma yoon nga jébbal ma mbedd mi ma yërwaana esclavage u xale yi ba tey moo ngi ci réew mi te dofi yaa ngi ci dëkk bi papa dem ci ma bala guddee sunu loxo jotoon ginnaaw dunka talal ci kanam yendu ci naaj bu tàng bi lu waay man lu waayam fi sabilillah